ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ñaan yàlla yàlla def fi jàmm ci Sénégal. Mm-hmm. waaw soo Siteu lan moo tax ma jël Siteu. waaw dara dara daa rek. Mm-hmm. waaw en plus dafa boo xamante ne booy bu cool la daal. Mm-hmm. jox cër magam yi moo tax moom envie jox ko may ko sens. waaw jox cër magam bu musul jël avance parce que Siteu moom. Ah. dalay jox cër bu làmb ji ngeen amul contrat mais tey moom sa jàmm jeex na sa diggante ak tarkindaay. sama jàmm jeex na ak tarkindaay. waaw amul problème mu góor la rek. Hmm. waaw comme am naa xoolu may ko sens rek alhamdulilah. Hmm. leneen ci li sëpp ay détails la. Hmm. Lac de Guiers gisoon nañ mu bëggoon combat yu kawee kawe. ku mel ni digganteem ak Modou Lo ku mel ni diggante ak Eumeu Sène ku mel ni ñeneen ak lan moo tax nga jékki-jékki rek ñu dégg na combat Lac de Guiers taxaw na ñeneen ñi ñoo la jël da am problème mu adversaire wala xaar bi dafa yàgg. non ñooñu dañoo may combat. waaw moment bi ma leen di soxla nag boobu amaguñu woon combat. yaa ngi dégg après ñoom ñu am combat ma toog xool mu nekk Siteu. Mm-hmm. mu nekk koo xamante ne tey euh, maanaam boo tollee ci benn niveau bi. Mm-hmm. ngay bëgg a yéeg. Mm-hmm. say mag jox leen cër. ñun bañ ca tollee noonu lañ doon doxee. jox suñuy mag cër ba ñoo ñëpp may ñu sens. kon donc Siteu la ma wan moom moo tax ma yëkkati may ko sens. ak nu muy communiquer ay magam. Mm-hmm. loolu dafa baax. Mm-hmm. boo bëggee yëg respecté ñëpp. Mm-hmm. waaw loolu rek moom moo tax moom envie may ko sens. kon nangu nga ne yaa may sens Siteu. ah maa ko may kay. lan la gën a mën a ak lu mu toll. lu mu mën ak lu mu toll Siteu mën na lépp. te lewul dara. waaw Lac de Guiers 2 dafa mel ni dafa màgg léegi ci làmb parce que Lac yu ñëwee tey benn xaaw rek lañ gis nga takk ko Lac bandul loxo bi deful ni mu daan def ñëw moytu gars yi wala yu mel noonu. non loolu yeggaguñ ci. yeggaguñ ci de. waaw ah. yeggaguñ ci li face A la. Ah. bu ñu eggee ci face ba doo ma jege sax micro yi sax daf may jege. waaw dañuy mooy suuf di di di pousse gars yi ayca ayca xaw bu awal tànk ayca ah Babacar du moytu kenn waaw Babacar yaa ngi wax de waaw ayca boo daan ah. ñu lay fay am gis nañ ko Papa Sow tamit def formation am solo nga waaw Anta Anta mbamba ak coow kay ci Modou loolu fekk baax mbamba ak coow fekk na baax ci Eumeu Sène mm-hmm. mbamba ak coow kay fépp la am Yékini waaw Yékini tamit mbab mbag coow fa la fekk baax. Hmm. waaye dañ loolu am benn problème nit da nga am fulla sa bopp rek. Hmm. xale yi faut pas ñu leen di excité. Hmm. am na loolu di excité rek ñoom dañuy gis seen bopp waaw. bi ma am fin mooy que combat bi que xam nga parce que la ak daan la ak match yu Mm-hmm. enjeu bi parce que mm-hmm. mm-hmm. mais Anta su ma daanee daanaat aw ma combat mbëri ñooy teggi parce que xam nañ fii lu muy saf lan la dañuy teggi la déggee de moo neexul a bëreel. la déggee de day def ni loolu ay détail la ñoom xam nañ loolu déggee de di saf cité bi ma jël nag. man ma am xolu may ko dañ bàyyi ba ñu dugg ci biir naa lay wax lan moo tax ma am xolu may ko. ok gars yi maa xam que mën nañu xam fan nga koy préparé parce que huit de préparation la laaj parce que maa su wax na ko sànq mois de a tëgg làmb ji. Mhm. fan mhm. programme nga nar say staff pour ñu mën a xam sama waaw loolu il faut ma toog ak sama staff waxtaan ak ñoo hmm. ah parce que am na yenn combat yoo xamante ne bu jëree génn da génn bu jërul génn da ngay toog waaw te loolu t'inquiète même pas di ngeen ci xam dara incha allah. Hmm. huit mois huit doy na. ndax huit mois doy na bari na sax mais tamit amuñ ci choix parce que tamit promoteur day liggéey waaw li mu jël huit mois nag moom moo xam dañ ko ci ñaanal daal combat bii daal li mu ciy séntu. mu romb ñortam. mës nga bëri mbër bu am gabarit comme ci kaw non man ko soog a. Hmm. loolu loolu wax na Baye Ba la wax. maa bu baax di félicité jàmbaar. Hmm. production ci combat bi ñu ngi indi parce que ñun ak lu làmb ñun njabootu làmb ñun tëggal ay combat yu neex. Hmm. Siteu ak Lac de Guiers. Hmm. amateur yi laaj nañ ko hmm. ci wax tey jàmbaar production indil ñu ko mais Lac de Guiers wax naa la ko sànq nee xale boo xamante ni boo ko jëlee dootoo planté parce que day perturbe adversaire ci lépp muy avant muy pendant et après du may dara. taw bi ñu gis ne yow da mel ni boo ko amee est-ce koy wax ak mbër mu ndaw Baye Balla dama mën bés de lu leer laa wax dama mën bés bëri na bruit bariwul bëri loolu amul benn problème mm-hmm. na yokk ak cadence bi na ko gën a yokk bruit bi man amoo problème boobu noonu mais lépp rek nay nañ ñaan yàlla jàmm am fi na jàmm am rek bu jàmm amee mm-hmm. alhamdulilah di ngi làmb ju neex mm-hmm. sedd bi waaw waaw mais kii nu tudd sax. Baye Balla yow Baye Balla combat bi des na huit mois. waaw mais huit mois mënuñu taxaw fii ne bés bi lii lañuy ñuy def. ñaan nga ah. loolu naa mosoon naa la ci tuuti rek parce que boobu da nga maa da nga maa pressing ci biti. Hmm. waaw mais dañ xaar ba bés bi rek dinañ ah, xool ndam. incha allah bu neexee incha allah bu neexee yàlla bu bës ba. Hmm. comme mosoon naa la tuuti ci biti. bàyyi ma denc lii fii na. nañu xaar ba bés ba. Damba production lañ ko. mais xam mais xam yëpp yow la ñuy xaar nga appliqué. kaw parce mm. que loolu ngeen bëgg loolu ngeen bëgg a xam. waaw bu bés ba da ngeen xool damay appliqué wala ma appliqué. Lamine est ce que bu ko jëm baaraamu tuuma. ci kàttanu yàlla du ñu fekk. Hmm. ci kàttanu yàlla du am incha allah. kon baat ak tontu ngay def Siteu. nañ bàyyi ba yegg ci. laaj dina ci yegg de incha allah. waaw incha allah bu ñu ci yeggee li nga xam ne xam baat ak tontu lay doon. lan fi nga toll ci lan jël fit est-ce que du risque ci yow. joo ndax am du ci man. waaw parce que dina ko woon sa choix. waaw nekkoon yow. mais yow nekkul woon choix sa si soo si si te doon sa choix. parce que ñu ngi doon xaar la dëgg ci diggante ñoom ak ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom loolu parce que kon boo jëlee Siteu fi nga toll ci laaj. Hmm. parce que amul léeg-léeg tey bisu bi ñëpp doon xaar tey mooy nga jëli ñooñu parce que loolu moo nekkoon sa xel bu ma dugg fi nga toll ci ce que xam nga bi mën a am ci yow ci risque yi ci nekk. waaw mais jàmbaar tey bu fekkee da nga ñoo soxla ñooñu di la daw hmm. kenn mënu ci dara. Hmm. kuy wax ma ñama soxla. tey ñu instant bi dañuy daw la dëgër numéro 2. kon donc ñu xool ci xale yi ki ci gën a yor ñu may ko sens. ak enjeu bu mu mënti doon amul problème dañ koy gérer façon enjeu bu ne gis naa ko du mbër mu ndaw Fadel lu nekk dékku naa ko ci làmb du ma ñëw ba ci Siteu naan damay jéem a seral déedéet dañ bàyyi ba yegg ci rek. mais mën nañ ci kàttanu yàlla yàlla pas bu mu teg beneen temps pas fekk si ko. ñëwal la jàmbaar bi bisimilah. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. Hmm. muy nuyu Mansoura. Hmm. di ñaan yàlla jàmbaar. yàlla na wuyoo turam daal. Hmm. te yéen ngi ci yoon bi quoi yàlla yàlla def jàmm. parce que combat yi li dëgg neex macha allah. surtout ngeen taxawal ak. nag dina am lu ma la laaj tuuti quoi. par rapport ak euh, parce que tey dëgg nga ay combat defe naa franc soog. combat la woon boo xam ne bi muy doog a taxaw fi ku nit ñi tegoon ak fa mu mujj c'est pas la même chose dem na ba nekk benn événement tey nag bii moom événement Lac de Guiers de moom événement la. Hmm. amul <laughs> ci mën a wax. Hmm. événement la hmm. mais est ce que mën nañoo xaaraat Ada Fass ak Zoss tamit man Paris mais est ce que mën nañoo xaaraat Mansour jàmbaar indiwaat beneen événement parce que Sa Thiès a ngi fi taxaw ñu wax digganteem ak ay adversaire moom Gris ñu ngi koy wax moom Tapha Tine ngi koy wax moom keneen keneen ñu ngi koy wax. est ce que Sa moom mu ngi ci xelu jàmbaar production actuellement. wala Reug Reug donte moom moo ñàkk combat ba. est ngi sa xel Mansour loolu sa question la bi ci des nag. mooy Lac de Guiers numéro 2. Hmm. rapport ak ni nga ko ni ni nga ko waxee léegi te defe naa faral wax na la ko tey nga nekk bokk ci VIP yi nga xam wala bokk mbër bi nga xam ne suma jumul benn defet la Lac ama. Hmm. ñaar kan ak kan ak ko daal. mën loo gëm seen ok hmm. voilà kon ñaar defet la Lac de Guiers numéro 2 am ci carrière ay ngi mais nekk mbër mu dafay bëreel ci li ñëpp seetlu. nga bokk ci les VIP maanaam ñi ngi ko seetal ca kaw mu mel ni. yaa leen ragal wala ñoo la ragal ba Siteu moom ñëw sànjaafu la te taxaw mu bërki dem ne ma da lay wane Siteu moom ak lu mën a xew yow yaa làqu fa sori ba mu làquwul fa sori hmm. daf lay wane buñ safi yàlla baax yàlla nañ ko fekkati tal ko ñaari laaj yooyu wane ko la Siteu bëgg a wane loo ciy wax hmm. Mansour yow tamit ñoom Sa Thiès mii fégal bërki démb da hmm. ngaa yi bëgg ñu naan ayawaat ak ayawaat loo ciy wax bàyyi ma bàyyi ma ah, de Hmm? déet waay ma gàttal la ko du moom moom mooy wane. Siteu ki may wone yegg seegul sax. moog ña ma àndal ñëpp loolu la ñu wax moog mënu maa wane. Hmm. tuuti na ci mënu maa wane sérieux mënu hmm. ah, ah, ah. ci déedéet ci benn côté mënu ma wane ci daal. même du ci yéen ñiy fii di wax sax xam ngeen ne mënu maa wane. ah moom moo xam la moo moo xam la moo tax man moom am naa xolu may ko moom. Mm-hmm. waaw am naa yéene may ko. Mm-hmm. kon donc moom la tax mu dugg ci kenn moo ko xam. waaye non mënumaa wane déedéet. donc dàq ko doole. non c' est pas question dàq bëre ak yooyu yëpp mais dama ne la du moom moom mooy wane. Mm. amagul niveau bi sax. amul niveau wane ah, ah, ah, ci kattanu yàlla. Mm. non beneen bis toppaat ah. Mm. dafa message bu may lancé. Mm-hmm. à propos suñu dëkk bi.